kawu décidé librement de retirer sa candidature. ah xaw ma ndax libre la de man ma topp si libre nag ku ma wax loolu. <laughs> ku <laughs> ku nekk yaa xam sa liberté. dañ ne na daal. waaw retiré na sa candidature nee na place le Sénégal au-dessus de tout ñu ne les décisions du conseil il n'y a aucune voie de retour de recours contre les décisions du conseil constitutionnel. Youssou Malem bu retiré wul woon candidature problème bu garaaw a wooti. day nekk candidat day nekk candidat day dem. day dem malgré tout justice mënu ko ko aaye. ban pouvoir la justice am pour aaye ko ko justice mooy kan justice du ñëpp la justice ce sont des procédures c'est juste justice judiciaire mooy dañ ko jàpp ne ko délit nga def kooku c'est la justice pénale judiciaire ay procédure la benn procédure justice mënu ko tere dem élection. benn bu mu doon. buñ ko falee nag. benn ah buñ ko falee mooy président de la république mu dàqalee ñoom ñëpp changé loi yëpp jëli bagage am dem yoon président yi ñu fal yëpp loolu la def. mais foofu foofu tamit am nañ am na faiblesse de. ah mais bi moo amoon faiblesse système bi moo am faiblesse su boppam. c'est clair non non mais mais mais je veux dire Rose Wardini bi ñu ne bi national la. waaw mais retiré na candidature non bu retiré wul woon candidature dem ñu fal ko. buñ ko falee mooy buñ ko falee son élection ne peut être annulée buñ ko falee mooy président du Sénégal. son élection ne peut être annulée. pour quelle raison cause d'annulation amu si cause d'annulation bi. pour parjure parjure haute trahison man parjure haute trahison kan la trahir. mais haute trahison président non. ku nekk président article vingt-huit ku nekk président mooy def haute trahison. c'est parjure mënoo si condamné nit mënoo ko mënoo si tirer conséquence bu ñu ko jugé wul fële condamné ko de façon définitive xam nga luy condamnation définitive. Hmm. mooy tribunal àtte la condamné appel bi toog ñaari at soog laa condamné nga dem cassation cassation soog ñetti at soog laa condamné nga dem juróomi ati procédure bu soog a jeex. mandat ba jeex donc mooy doon président wu juróomi at bi jeex. mandat ba jeex nga fekk ko fa nag yóbbu ko kaso